alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu kenn ku nekk turam ak santam ci wax wolof ñu ngi siyaare mbokk julli yëpp di siyaare mbokk yëpp di ci jiir Ibrahima Ba yàlla yëpp yàlla ba xam ci kanam ak kanam ak kanam tam ànd wér ak wér la ak ngooñ ak toppam ngooñ toppam si Alaay Babacar Ba

Alxaaj Baay Seyni Seck ñu laa sant ñu laa gërëm na leen gërëm gën a gërëm la lii ñu yàlla war sagal nit yàlla ko war sagalee waaye gëm nañ ci san loxo ci la jaaree su ma dugg ci fay loo mën naa Cheikh Ibrahima Niass su ma dajee Cheikh Laaj Babacar Ba du laaj ci Alxaaj Baay Seyni ya xam ne gën naa yàlla ko war nangu waaye foofu la ko yàlla dogal ñu laa sant ñu laa gërëm bu baax te xànd buñ xànd xànd ba rafet lépp yaa ko rafetal ñu ne ñu ngi sant yàlla ba foogoon nañ bi mën a ñëw li nga démb yaakaar naa docteur yaa ci man yaakaar naa ci suba ba si ci ngoon ñu maa safa ay hôtel soo wax ak yëpp maa ne dañ ko waaye kenn ñu ñëw waxam xam nga bu dee ñooy a pànk soo doom benn doom bu nekk ci àll bi jàngale mu téléphone mu ne ñëpp nañ maa kër yëpp nañ naan ko ne duñ dem kon moom kenn du mën dem ma dégg Mariama boo woon soxla su ma def dëkk la nekk su ma soxla Mariama ñëw dikk na ma kenn dem dangay foog ma ko ndokk yàlla bu baax su ma yor yoon dafa gën a wàññi du ma am benn feere ba nguri ba su ñëpp demoon te gàmm nguri ba euh, foomoon xanaa ma foomoon wala wala bu ñu yoon foom na sax ma dee dama bu ñu teg ma caabi yóbbu alhamdulilah ma ne su ma demee rek danaa yëgatuma dara amul lenn lu ma yëgat lu ma ci sant yàlla bu baax fii nag ñun moom lañ xam moom lañ yaakaar këri na ak àllaaxara yóbbu yaakaar nañ yàlla lool waaye yàlla itam lépp yaakaaram yëpp yaa moom i doomu aadama yi kon fii lañ bëgg ku bëgg fii bëgg nañ la ndax ci yow dara kon Cheikh Ibrahima yokk sa fan yokk si wér yaakaar si kanam loo bakk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii yëpp eh, ndimbalal yàlla la ak ñaanal waajur jamono bu mu toogee demee nii nag damay déglu suma waajur Cheikh Laaji Mouhamadou Kamara bi nga xam ne yaram yi tàngal mu ne ma doon kaay ma kaay ma wax la loolu bëgg ma a la yàlla dimbale ma tënk ko ma ne ko lépp lu la gën a baax rek yàlla boole nekk ma taale baay suma suma waajur nekk taale nekk taale baay taale bi ci waaye mu ma loolu mu ne ko loolu laa bëgg mu ne ak lan mu ne ko ñaanal ma leen lépp lu baax di tànn ko lu gën a baax yàlla boole ma ci alhamdulilah bi ma yàlla boole ci la xamante yàlla boole ma ci ko loolu moom moom la si laa ne tànn ma wëssi la wo si xalal alay baax kat baax ko sant yàlla bu baax daje bi yàlla ko yàlla gërëm yàlla ne fekkee xaaj yu bëree bëri ko def xam ko li suba sëriñ waxoon gëm nañ ko gis nañ teg nañ ci bëri noonu la ñëw alaaji asal bu leen dàq bu leen tiir li ci kanam mooy gën a gudd moo gën a neex mooy gën a barke alhamdulilah te liñ ko ci tegee bët fii